salaamaaleykum man seen soppe seen xarit euh, seen doom seen frère man Sonko may def vidéo bu gàtt bi rek pour euh, waxtaan ak yéen saafonte ak yéen euh, yee salaat sama nammeel ci yéen xam naa ni nu nu ko raw ngeen ñu nammee fas yéene ci lu gàtt rek am nañu ubbi ci ay tomb ci waxtaan ak yéen mbokk yi gannaaw loolu Euh, dëkk bi yëngatuwaat na en tout cas ñaar ñetti fan yi weesu yëngatu ci wàllu wax ak ci wàllu communication gis nañ seen taxawaay gis nañ seen dogu yéen waa askan wi rawatina ne yow ndaw mi gis nañ ngeen fe feddaliwaat seen yéene ci ñun ndax bëri na ñoo xam ne jàppoon nañ ni ngeen wane woon ci jamono mois de mars te ñuy ñaan yàlla bu mu fi mës loolu ne nekkatu fi ba ñu yaakaar ni war mun nañu delluwaat ci la nekkoon ci ay tappale waaye li ngeen jot a wane na ni tey la mbir mi gën a fort ma leen di gërëm di leen sant leen wax ni nag kóolute goog ngeen am ci ñun du jëmm usmaan Sonko ndax amul solo ndax gënuma fi kenn jut ëpp ma fi kenn alal wax dëgg yàlla foo natt rek nit laa dë dong ni yéen gënuma fi kenn waaye du jëmm Ousmane Sonko juróom benni ab juróom-ñaari at yi nga xam ne taxaw nañ ko ci ci ci ci ci géewu politique bi lañ leen andil ci wax ak ci jëf ci gis-gis ak ci yéene lañ leen andil ci yéene gi ñu am xeex ba nooteel gi nga xam ne ñu ngi koy dund ay siècle ba tey ji jóge fi ba alal réew mi ñuy randal jóge fi ba dërëmu réew mi dellu si ci askan wi ba suufas réew mi nga xam ne ñu ngi koy jaay loolu dakk ba ressources naturelles yi nga xam ne ñu ngi koy séddoo di ko pàccoo te Sénégal amu ci dara dakk yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu andi te wan leen ci dogo bu mat sëkk loolu moo tax ngeen ñi xeex waaye du jëmm Ousmane Sonko loolu nag nañ ko andee démb ba barki dem tey lañ ci gën a am dogo ñu leen di gërëm ci confiance boobu di leen feddiliwaat ni confiance boobu pour soobee yàlla fii léegi bakkan yàlla ñu koy bàyyil du ngeen toog ba ne am na ñu fàttali gis nga institution du ab nit boo mën a téye du ab garab boo mun a laal du ab bâtiment boo mën a teg sa loxo institution benn entité bu abstraite la benn mbir la benn jëmm la joo xam ne jëmmoowul ci lu ñu mën a laal waaye la koy jëmmal ñaar la muy yu am solo bu ca njëkk mooy charte yi nga xam ne moom la réew mi tëral ne institution bi ci charte yi la war a doxee ñaareel bi ko jëmmal mooy nit ñi nga xam ne teg nañ leen fa ne leen yéen a war a doxal institution bi waaye dañ koy teg ci kaw charte yi nga xam ne ay loi la ak ay règlement yu ñu wote ba teg ko bu ñu demee nag ba nit ña war a jëmmal euh, institution yooyu ñoom ñooy njëkk a joggati institution yooyu dafay laaj ku ko mën ku ko mën wala ku ko sañ nga taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen li ngeen di def tegut yoon looloo indi situation bi ngeen gis ndax ñaata yoon la institution bi jalgati samay àq ak samay yelleef ma fàtte leen si lu gàtt débat bi sax bëgguma ñu teg ko ci ka ci waxu institution parce que man gëm naa ni li ëpp ci magistrat yi ñu jub lañu ñu dëggu lañ ñu bëgg a def seen liggéey lañu euh, wàññi institution judiciaire taxul ñoo jóg amuñu problème ak institution judiciaire amuñu problème ak magistrat yi waaye bu amee lenn ci magistrat yoo xam ne dañuy doxalee méngoowul ni ñu war a doxalee magistrat nag nit la dong magistrat jox nañ ko cër trop waaye nit kese la comme man comme yow comme keneen day juum day tooñ day def naka su noonu donc su loolu amee dafay baax ñu ne ko ah attention ku bëgg ku respecté dëgg nag institution judiciaire noonu ngay def ndax loolu mooy dimbale justice muy xoolaat boppam di remettre boppam en cause li ma waxoon la résistance est un droit buñ la bëggee jaay lu dul doole ci lu dul dëgg constitution moo la may nga résister kon loolu moo ne woon kàddu yu gàtt di leen gërëm di leen sant di leen wax ni soyez heureux vivez bu leen kenn stressé bu leen kenn teg lu leen warul teg àdduna bi du dara te koo fi gis ak maqaamam lu mu toll nit doom nga la nit njaay boo xam ne day dund bu àppam jeexee mu dem bu leen ragal kenn kuy nit ni loolu yab yàlla la waaye bu leen tooñ kenn bu leen njëkk a dóor waaye am ngeen sañ-sañ buñ leen dóoree bëgg leen jaay doole ngeen defaan seen bopp ñu leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu Euh, dañu leen di indilaat kàddu yi rek xam nga boo nekkee ci réew moo xam ne daanaka ay bandi ñoo ko jiite bis bu ne dañuy bëgg indil nit ñi ay euh, niñ ko mën a waxee mooy ay miscommunication naa naka laa ko mën a waxee ay hors sujet euh, tey senegal li ngeen gis fan yii yëpp ñu koy yuuxu ñu bu bugg koo def topic of the year mooy mbirum am nasti bi nga xam ne moom la Macky la bëggoon depuis àjja àddunay démb bëgg a paase am nasti boo xam ne da koy setal moom njabootam pour suñu alal yi ñu luubal ak tappale yi nga xam ne yooyu la def ci suñu biir réew yi ñu mën a daw raw rawale suñu alal dama bëgg ñu dem dégluwaat usman sonk ci kàddoom yi ci mbirum am amnistie boobu jërëjëf merci dafa jàpp ni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 te loi si rek maa ngi avertir sénégalais yi ndax mun na ci dugal loo xam ne luuba yi am ci réew bi yëpp dañ ko ciy boole loolu nag bu ko ñi mu jig ñi mu jagleel loi d'amnistie buñ ko nangoo ñoom seen bopp sax daf mel ni tooñ dugal ci loo xam ne dañu naan à partir de tey jii ñu voté loi d'amnistie ba peut-être 2012 wala 2000 nangam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 loi d'amnistie bu mu bind na ko sénégalais yi na ko waa assemblée nationale càmbaraat bu baax a baax a baax parce que boppam la ciy dugal ak ay xaritam ñooñu la bëgg a amnistie ba ñi luubal milliards yi ñi sàcc alalu réew Sénégal bi ñooñu la bëgg a amnistie dama ne lii hors sujet la c'est pas le sujet du jour le sujet du jour c'est na élection yi am le vingt cinq février Amérique wañaar nañ loxoom le secrétaire d'État Tony Blinken nee na Macky Sall na amal ay élection ci li mu gën a gaaw dama bëgg sénégalais yi ngeen bàyyi loolu xel le secrétaire d'État Tony Blinken nee na Macky Sall lépp lu mu man na fexe amal élection yi à date issue ñu bari nag ñooy diversion waaw voilà Sénégal pays bu souverain la Amérique mënu koo ne mu amal élection à kay Amérique mën na wax réew mu ne réewu démocrate bu ne amalal ay élection yu jaar yoon boo ko deful dafay sanctionné doomu aadama yooyu nga xam ne ñoom ñoo bañ amal élection ba réew ma yëngatu loolu Amérique am na maqaama bi am na kattan bi ku ne amu ko dangaa juum parce que Amérique puissance mondiale la dafay am li ñuy tudde ay aid aid package maanaam di jëflante ak ay réew di leen jàppale ci fànn yu bare bare bare bare bare bare Sénégal daanaka li fa Amérique di dugal ci xaalis c'est plus c'est presque des des des des milliards la la ñuy jox toujours di ñu ko jàppale at bu ne ci éducation wala ci lii wala ci lële donc kooku bu la nee nga def parce que alalam dafay dugg am na droit pour wax la looy def donc gars xam leen ne le 25 février incha allahu rabbi élection day am Macky Sall mi ngi leen bëgg a divertir pour ngeen nekk ci yeneen hors sujet pendant ce moom mu nekk ci ay pexe tappaleen continuer leen campagne continuer leen campagne comme niñ ko doon defee ci parrainage bi nañu campagne jomaay sonko mooy jomaay amin jomaay mooy sonko nañ ko continuer campagne di dem porte à porte di dem ci gox-goxaan yi di dem ci dëkk yi di dem fu ne l'opposition sénégalaise bu leen nelaw Restez réveillés et faites vos campagnes partout à travers le Sénégal Macky Sall dina tëgg ay élection amu ci pexe par A ou par B dina tëgg ay élection te par force te incha allahu rabbi kii war a gañe dina gañe te dina gouverne Sénégal donc gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu leen fàtte nag jëli seen i ay kayit seen i ay carte d'identité ngeen jëli ko ngeen continuer campagne beneen affaire aussi gis nañu defe naa kayit bi yéen ñëpp ñun ñoo ko gisandoo kayitu démenti bi nga xam ne euh, l'ancien président Abdou Diouf sosal nañ ko démb bind benn kayit ne moo Ablaye Wade ko bind voilà donc euh, Abdou Diouf moom génn na leeral na boppam moom def na démenti euh, Karim Wade mu yabaate ma tamit Qatar moom it génn na entré dans la danse ba def fi itam comme ni ko beneen politicien bu yàggul patron wu juuda defee di def seeni ay tappale di bëgg a gaar walle naan waaw Ousmane Sonko moo laaj dialogue ak Ousmane Sonko moo laajul dialogue seen tappale yooyu euh, ngeen génnee ci Ousmane Sonko ba mu set voilà yoonu Ousmane Sonko nekkul ci ay dialogante yoonu Ousmane Sonko nekkul ci ay deal ndax il est plus important que vous bu bëggoon def ay deal dana ko def comprendre Ousmane Sonko bu bëggoon def ay deal tey du ko fa fekk yéen band yi yéen toog leen di def seeni ay dil di def seeni ay wuruj ak waraj di def seeni ay tappale saa boo leen lalee dil ci suba bu ngoonee ñu demantale seen dil saa boo leen tegee dil la matin le soir ñu démantale seen dil dil bi ngeen teg nii du jàll voilà tappale bi ngeen di jël nii seen communication bu force bii di ko jéem a tas di ko dugal ci xelu nit ñi naan Ousmane Sonko ngi waxtaan ak Ousmane Sonko woote waxtaan ak voilà seen duulkat ba moom Italie moom bi mu jaaxlee xaw ma Allemagne ba mu jommee Ousmane Tunkara la bind moom nee na Ousmane Tunkara woote diil pour ngeen xam ne ay dof ngeen ko seqal voilà moom ba mu jaaxlee nee na Ousmane Tunkara moo woote diil Ousmane Tunkara bu muy wootee diil kan lay woo diil focus leen jomaay mooy Sonko 2024 incha allahu rabbi on on veut des chiffrage bi 90 pour cent la ñu bëgg au premier tour l'histoire historique bëgguñu ay cinq ay 52 ay 58 non 90 pour cent lañ leen war a duma au premier tour prisonniers yépp jour boobu la ñuy génn ñu célébrer ak ñun jomaay génn sonko génn ñépp génn wa illa bu décidé bàyyi gars yi comme ni mu ko waxee suba ginnaaw suba ginnaawaat suba mu décidé bàyyi leen xayrun loolu affaire am la mais loolu du teye ñun dinañu dem campagne bu soobee yàlla te dinañ ko duma ba mu xalangu incha allahu rabbi au premier tour donc may na sénégalais yëpp nañu focus bàyyi leen fële ay mbiru Karim Wade bàyyi leen fële ay mbiru Ablaye Wade bàyyi leen fële ay mbiru Abdou Diouf bàyyi leen fële ay mbiru Samba ay mbiru Demba ay mbiru Majoojo ay mbiru Mapaate sàmba ngeen concentré wu ci jomaay mooy Sonko diversion la diversion ci la ñu ne man maa leen garantir lan ne deux mille vingt cinq deux mille vingt quatre bi Sénégal bu prospère ngeen di am ginnaaw la 2 avril incha allahu rabbi ginnaaw la 2 avril yéen a ngi am président voilà séeréer te dina doon xale bu ndaw incha allahu rabbi dana duma waaji ba toog ci biiram waaja ba moom xaru na Amadou Ba moom dee na Amadou Ba bu amoon deux pour cent fi mu ne nii un virgule zéro pour cent lay am donc gars yi jóg leen ngeen xar seen tànk tubéy voilà peine perdue nitu Macky Sall yéen ñiy wër ci réseau yi kat duula kat dajale di woon nit ñi téléphone di leen jéem a divertir di jéem nelaw nelawloo xelu nit ñi penn perdue voilà jóg leen xar seen tànk tubéy ñu génnee fi Macky Sall Macky Sall pare nañoo ak moom Macky Sall incha allahu rabbi ginnaaw le 2 avril dootul nekkati président Sénégal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu